soxna Aïda Diallo ñu gëjoon ko dégg mu wax ca jamono yi màggalu tuuba ginnaaw ba ay nit demee woon ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké doon ko wax Aïda Diallo da doon takk ay sëy di ngénte ay doom wala sax mu doon nangu ay jébbal yi taalibe loolu sax taxoon ba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké génnoon def ab sort sortie la woon bu baax acte yooyu nga xamante ni waxoon nañ soxna Aïda Diallo da ko doon def ca bisu màggalu Touba googee boobaak léegi nag kenn déggu doon soxna Aïda Diallo waaye mel na ni nag génn na ci tekk gi mu nekkoon cant guñ amaloon ca Medinatu Salaam ci la soxna si génn defaale ab discours bu am solo dañ leen di bàyyi rek ngeen déglu boobu lee discours. kàddu yépp kàddu cant ko laa féete kaw lépp waaye may bëgg ci mbokku taalibe yi biir réew mi ak bitim réew bu ma nee Matlabul Fawzeyni nuuru daare ji léegi bi ko ñor universel Ibrahima Saad wax maa ngi ko daan dox dajale lépp ngi ci biir ndax sëriñ Saaliwu mooy borom Daaru Salaam mooy borom Matlabul Fawzeyni mooy borom nuuru daare ji waaye mooy borom Touba kër Sëriñ Touba mooy borom xel kom kon moom moom lépp moom ñu moom ñu ñëpp moom gi fi ñu moom nag dëkk ñoo mooy sëriñ Béthio ndax nag daf ñoo jël jox ñu sëriñ Béthio sëriñ Béthio sëriñ ko yaay sama dëgg dëgg jëm jàpp ci yow mooy dëgg dëgg jàpp ci man bu ko def li nga ma noppal te ji ak lu lëgg te di nga def lu ma neex kon sëriñ Sall yu moom waaye dafa ñoo jël moo mel ni sëriñ Béthio muy dëggi dëggi moom sëriñ Béthio di suñu lépp di suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira waaye dañ koo doyloo fii ak fa jëm dañ koo sopp dañ koo bëgg dañ koo wóolu mu boole ñu boole yi moom day saa yu dajee sama xol lay gën a seet ndax li koy waral mooy daf may leer ni xolub sëñ ba ñoo seet xolub moo seet lu guy daf may leer ni ñoo ngi ci li neex sëriñ ba ñoo moom day lu mu mën am sax yi sax sëriñ Saaliw ak lii bu ñu dimbali ba saa su ne ñu daje muy Touba Kër Serigne Touba di soxna Batool Saliou Thioune muy xel koom di soxna Dia Saliou Thioune ñu di ko àndee te muy nammeelu Serigne Béthio di jëfi Serigne Béthio ànd bi rafet lool ñu sax ci mbëkk sax ci cant saa su ne ñuy yëg nii. tey jii la fi Serigne Bethio gën a ne ah man lay damaa bokkul ak ñi jàpp ne Serigne Bethio dafa làqu ndax dañ koy wax sax làqu ngir rafetal waaye dana war Aïda Diallo potentialité la boo xam ni bu ma naa war moom la war a gis hmm. war ma nag lu leer la kon sëñ ba ci jógu fi tey jii la fi gën a ne mu ne dama koy faral di wax saa su ne jàpp ne moom sëñ Béthio dafa làqu ba ñu denc ko bokk ma ak yow pas ndax suñu waajur fi jóg ndax muy faatu mënul lii muy faatu mënul lii tey jii la mbooloo bi gën a bëgg tey jii la pas-pas bi gën a yokk tey jii la yitt gi gën a yokk tey jii la bëgg gi ak cofeet gi gën a yokk waaye tey jii la jëf gi gën a bàq loolu nag kuy kàddu mënu ko ba tax na maa ngi bëgg maa ngi sant Serigne Gueye koy santaat bu wér waaye li ma gën a neex ci cant bi da cee bokk doxin yii doxin rafet bi man man day l'universel Ibrahima Sarr mu ngi koy wax l'universel Aliou Bokum mu ngi wax ndax mel na ni sax ndokk ndax xam naa au niveau bu génnaatoon danaa rus ngir keroog ba may wax ak yéen waxee naa yéen noo xam ne day noppi naa di ko dégluwaat am kersa waaye mu ngi mën a nopp waaw ndax waxin wax dëggraayu wax ja waaw na wax ja méttee waaye sëriñ bi da koo jaar ñun ay jaam lañ ay jaam jaamaat lañ sëriñ Tuubaa lépp te ku gis yëf yi ni mu demee wala ya xam ne hmm, kii Sëriñ Tuubaa moo ñàkk morom waaw moo lay dimbali soobu la ci boppam ndax bëgg gi gëm gi doyloo gi wóolu gi yaakaar gi àdduna ak gi cofeel gi yitte gi ak liggéeyam gi moo ñu liggéey loolu loolu lépp buñ ko moo ko def ci ñun ndax lay Sëriñ Tuubaa foofee yàlla dafaa yeggul ba di ko xam Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo xam day lu kenn mënta xam te kenn mënu moo waral mu dimbale ñu ba indi ñu ci boppam bëggaloo ñu boppam ñu gëm ko wóolu ko sopp ko yaakaar ko àdduna ak àllaaxira waaye mu liggéey loolu loolu lépp lay moom moo tax lu ko sat doy yii fi feeñ nag mu leer ma ne suñu waaj sëriñ bi amul dënn doom sëñ Béthio sëñ Béthio gaa ñi amul dënn doom kenn doom barki sëriñ Tuubaa mu lii lii lii climat la. kenn mës koo gis. daa ko xamul kon boo ñëwee da nga naan xanaa ñu dañuy jaay oto. waaw. nga demee ci. ma tàmbalee ci oto soxna batoor bi nga xam ni man da leer na ma tey jii bu ma tëddee damay nelaw ba yàndoo waaw loolee nag man la concerné waaw man la concerné ndax leeral dafa solo bi ñuy waaj màggal sëñ Béthio daf ñoo jëndal ay oto jënd leen oto yi ba États-Unis def ci koppar yu bari mu mel ni sama oto njëkk yes yi te laata mu yes yi def na six mois de wees yi sëñ Béthio ak soññeem sëñ Béthio ak waxam guddi ak bëccëg lijjanti sa oto bi lijjanti sa oto bi ba oto bi ñuy génn koor daf maa taxaw xër bee suba dama lijjanti sa oto bi te bu ñu ko def sama tur ndax moomu ko yow laa ko jëndal muy poche xeer S ci ci ndimbalam oto bi yes moom mii oto bi yes yiwul sëñ ma dem Bordeaux ñuy waxtaan maa moom mu ne ma man lay seen oto yi nga xam ne ba lay yes ndax moom man sama oto sax ndax mars bi ma jógee góorgóorlu ba ñibbi si le 12 avril ci lott bi doxee si ñuy waxtaan mu ni ma oto yi day bu ma sañoon seen si waaw ah, dina yegg si mun na ma yow sax la yaa gis ne ndax yow comme nee nañu oto bi daanaka yegg si